Mama Cora, Nora Féchen. Euh, signifie commerçant autour d'une vision. On est là aujourd'hui pour faire notre grande première, la première foire de la cave. Donc, nous convions toute la population sénégalaise à venir massivement euh, visiter et acheter les bagages. Euh, nous sommes en accord avec notre ministre de tutelle, Madame Aminata Assomdiata, et puis avec le directeur de la CISES e qui nous épaulent, Monsieur Saliou Keita. Donc, euh, nous invitons toute personne aussi de bonne volonté qui veuille nous sponsoriser. Euh, précisément, il n'y a pas de critères. Plutôt pour euh, accéder à adhérer à notre GIE, il faudra donner 10 000 francs de... Bon, c'est une somme symbolique et puis une, une, petite, carte, une petite carte de photo d'identité. C'est ça la, les, les formalités d'adhésion. Pour ceux qui veulent aussi acheter des stands, pour les membres de la cave, les stands sont vendus à 80 000 francs. Ils sont prioritaires quand même. Et pour les non-adhérents, on vend les stands à 100 000 francs. Donc c'est abordable et nous invitons toute la population sénégalaise et puis internationale aussi parce qu'il n'y a pas que les Sénégalais qui y participent. Il y a beaucoup de nationalités. Il y a les Tunisiens, il y a les Marocains, il y, a les, personnes de la sous-région comme les Burkinabés, les Togolais, les Béninois, les Maliens. Donc c'est international. Wow, salam alaikum wa rahmatullah. Nous sommes donc on salue à tout le monde. Donc euh, le groupe CAV, Madame Commerçant autour d'une vision, nous sommes invité à ce moy sen du 14 au 4 juin inch'allah 14 mai au 4 juin donc nous ce képp ko nous commerçant les tay comme nous avons ko xamé cave commerçant autour d'une vision fi ñu ko créé faire le mooy euh, CICES donc yàlla def na comme ni ngeen ko xamee tamit foiru ren bi ça n'a pas trop marché doxul woon donc bi mu doxulee nag li ñu defoon mooy dañu naroon ñun en tant que xale les jeunes exposants dañu naron madame def comme gars yi la ñuy def rek comme on a l'habitude de faire madame génn takk ay bandeau rouge wala woo média yi affaire yooyu donc si nous ñi nga xam ne mooy suñu mag mag parce que CAF dafa am ay mag mag ñi ñu jiite doon ay magu diine magu l'islam ñu xamal ñu lepp loolu mënta def rek loo xam ne ah, ay yëngal la wala des choses comme ça daf ñu yàqal ñun ñëpp parce que on a déjà donné notre argent donc joxe nañ suñu suñu xaalis ba pare donc yàlla def nag ñu waxtaan ak ñoom ñu ne li ngeen def lan la mooy fexe leen ba ngeen defar seen publicité bopp parce que dañu sentir ne foire bi su doxul foire CCS international bi bu doxul c'est tout simplement parce que yàlla dafa def ne amul publicité bi nga xam ne moom la war donc du coup ñun ñëpp on a répondu favorable parce que ku si nekk si ñun maanaam en tant que exposant génn nga cinq mille wala dix en tout cas ben somme symbolique bo xamné moy tax ñu def suñu publicité bop donc su leen dem ci yenn ki yenn télé yalla def ñu def suñu publicité et ça a commencé à un peu bouger donc si kaw lool nak on a eu euh, l'idée pourquoi pas continuer comme ça parce que nous, en tant que exposant ou bien en tant que commerçant on a vu que la plupart du temps li nga xam ne mooy xew mooy sentir ñu suñu bopp c'est des fois yéen ñuy def mooy da ngay gis koo xam ne daf organiser benn affaire te li mu lay organiser noonu da ngay yow da ngay dem ba xam nga parce que tout simplement non seulement tu as am nga li nga xam xam-xam bi tu as la connaissance mais aussi am nga li nga xam moy xaliss bi parce que qu'on se dit la vérité tay bu fekkee ne maanaam dañuy natt li nga xam moy xaliss Sénégal mën nañu wax ne le secteur informel le secteur informel moy li nga xam mo moo gën am importance donc du coup on a commencé à parler di waxtaan di def ay réunion ba si leen gis ne la première chose à faire comme on est euh, on est encouragé par le euh, la ministre euh, du commerce donc yalla def li ñëk am moy lan

parce que mën on est sax boo les jours bon non salle bi nga xam ne moom la quand jël kon def na on on était pas satisfait donc mu jox ñi li nga xam ne salle gratuitement donc yàlla def nag affaire bu réussir ñu pare si loolu comme ni ñu waxee rek di dem muy gën a neex rek ñu ne waaw pourquoi pas léegi ñu def li nga xam ne mooy cérémonie religieuse parce que la majeure partie des gens c'est-à-dire des commerçants nous sommes des musulmans bon bien vrai qu'il y a des chrétiens donc ñu ne lan ñu ne aywa léegi nan def li nga conférence religieuse donc c'est lañ ko defee fii nga xam ne c'est encore parce que aussi on est en partenariat yu bëri suñu euh, activité yu bëri foofu lañ koy defee donc yàlla def daal ñu def li nga xam ne mooy activité boobu noonu moom ça a marché donc ñu ne pourquoi pas continuer et là yàlla def nag euh, in fact ñu def li nga des ne suñu première foire te yaakaar naa ne première édition foire te y a ne ah comme ni ñu koy que rek képp koo commerçants ne commerçant nga war nga parce que man j'ai l'habitude de le dire nee naa leen les loo xam ne mën nañ ko def fini, Sénégal wala sa Afrique parce que Sénégal dafa ndaw we African uh, we we African then we Senegalese c'est-à-dire dañ nekk ay africains ba pare soo ko doon ay sénégalais donc lepp lo xam def nañ ko muy suñu biir liggéey gorlo dinañ dama ben instant ba instant boo xam peut-être yenn groupe yi duñu fi nek moy les multinationales yi nga xamné ñoo fi ñew duñu sucé all right duñu sucé donc du coup ñu commencé li nga xamné moy foire pourquoi pas moorna na nek donc on s'est organisé on parlait waxtaan waxtaan waxtaan waxtaan ba yalla def dal vraiment exploit bi nga xamné mo ngi la gis ni mu am donc di remercier ki nga xamné moy le directeur de l'estade moy mooy ki nga xamné moy directeur du stade bi di remercier ki nga xamné ne tamit mooy ministère des sports parce que mo ñu may ñu nekk fii nii di remercier ki nga xamné moy sous préfet bu maanaam euh, parcel mom tamit japp na ci combat bi la maire bi nga xamné mom moom lañ fal moy maire euh, maire Patte d'Oie bi donc ñoo ñep jàppale ñu mais gis nga bo len xolé fi fi ngeen gis ni nek na nekk na lieu bo xamné si vous étiez là, madame, il y a deux jours en avant, sérieusement, vous n'allez pas voir ça. Madame Menouoni, c'est-à-dire j'avais des voitures. Nous savons ce nous Donc, nous, on a pu innover. Donc, cela veut tout simplement dire que nous, nous avons nous avons moyen faire change it, madame change, li nan changement. Moyen faire ba lepp lo xamné gis nañ ko muy place bo xamné wa deug yalla yalla def na amna no mel té ñu war fa manam daan li nga xamné moy suñu doole Ñu def ko paré def ko no xamé né manam mbir manam manam no xamé da fay muccu ayib.

donc loolu moy li nga xam mom la amone pour wax ko donc di leen gërëm yéen ñii ñëpp parce que wax dëgg yalla instant bi gudd na taxaw yéen ñu ngi xaar xam kenn ñëpp ku nekk xam na ne commerçant mom ay mbirëm da ngay waaru bon bi nga fi tax bi ngeen fi taxawee ba légui yag na donc ñu ngi leen di euh, jégalu si loolu te noonu dafa démé dal wa bi mooy suñu première édition comme ni ma ko waxé légui donc du 14 au 4 juin moy suñu première édition suñu joggé fi inshallah 20 jours lay lay lay durer suñu jógee fi ñu ngi envisager dem fi nga xamné moy soit soit fi nga euh, euh, Wakam donc yi nga pour le moment mais buñu paré fini Dakar rek euh, Sénégal donc we're gonna go you know gonna go outside manam dem jógee Dakar dem soit Thiès all right Thiès ñu fi nga pourquoi pas Saint-Louis région 14 régions n'est-ce pas c'est 14 lépp lo xamné région la bëgg nañ fa teug lay def bu so this is what it is amuñu ñu benn sponsor yàlla mooy suñu sponsor instant bi nii donc ba pare di woote képp koo xam ne sponsor nga am na ñoo xam ne contacté naa leen ils étaient mes amis te yàlla def na peut-être man bi may wax ñoom gis ñu lii mais gis nga jeune bu fekkee ne dafa jóg pour liggéey nga xool ko observé ko xam ne kii liggéey rek moo ko tax a parce que mënoon na def leneen jiimal nga accompagner ko donc ñu ngi woo sponsor yi ak ñi nga xam ne woo naa leen wuyu ñu ma nañu ñëw y a pas ñu amuñu problème boobu nañu ñëw ñu liggéey ensemble parce que Sénégal ñoo ko mën changer Afrique ñoo ko mën changer foire bi warul yem fii nii ça doit continuer cest à Africa fépp foo xam ne Afrique war nañ fa mën tëgg li nga ne mooy foire pourquoi pas l'international ñoom dañuy ñëw fii pourquoi pas ñu ñu dem ngi fi ganaar yaa ngi lépp ngi fi lépp lingerie amul fii lu fi manqué montre yeeg lépp fi nekk ah, ah, ba pare tam dinañ fi def ay ay ay lu ne dinañ ko ay invité dinañ fi invité ay artistes dinañ fi ay concours danse sabar yoo xam ne képp ku daaqa sabar man maa lay may téléphone ay téléphone laay teg yoo xam waaw ma waaw waaw ah, ah, ah bi ñu ngi koy def vingt deux jours le quatorze ba le quatre vingt deux jours lay doon entrée gratuite am lu gën a neex sax gratuite boobu am na beneen gratuite bu ci nekkal képp koo xam ne sa bët dañu nga am jafe-jafe nga ñëw fii ñu xoolal la ko gratuite fajal la ko gratuite may la ay verre gratuite waaw loolu moom am na fi ñuy ñuy ñuy lancer appel Sénégal yëpp képp koo xam ne nii am nga jafe-jafe bët eh, ñëwal ñoo ngi sax ñaan incha allah ñi nga xam ne dañu faj ba ba bëñ bëñ buy metti bëgg nañ mu ñi koy faj ñu ñëw fi képp koo xam ne sa dafa am problème ñu fajaloo ko nga dem te doo fay dara waaw ak don de sang yëpp dinañ ko fi bu soob yàlla di sant di gërëm ñëpp ñi nga xam ne jàppale nañ ñu ku mel ni Youssoufa directeur stade bi Euh, ak Matar Ba jàpp na ci bu baax suñu ministre bi maire euh, Padois bi jàpp na ci euh, gouverneur fàttewuñu ko su préfet parcelle préfet Dakar ñoom ñëpp jàpp nañ ci wax dëgg yàlla ak commandant bu central bi jàpp nañ ci incha allah suba da gis mu ñëw fi indi fi équipe bu doy waar boo xam ni incha allah képp ku fi jaar di def loo xam ne du noonu dinañ rëq sa ndigg di wax ne sécurité bu doy am na fi commerçant yi dañ am confiance xam ne lépp lu fi waaye teg boo demee tëdd nelaw sa xel na daal police ci ñetti oto lañ fi indi oto nañ indi trente police yoo xam ne ñoo fi loo wax ci dakaar instant. ca kaw ca kanam. lamp yi na. ndar ràññ mooy site bu baax bi ndekete site bu wóor baa ngi nii site bii nga xamante ni boo ko dégloo sam xel dal set nanu wir nanu te la ñuy wax baax na information yu baax na dañuy joxe. Dakar a ngi nii. Dakar instant nee na moom ngeen di seetaan à l' bu duggee YouTube. tàppee Dakar ñu yaakaar ne Dakar leneen ngay def nga bind instant ndax instant bi nga toll da nga ko war a dund ndax dañ ne le passé c'est le passé le futur n'est pas encore venu donc vivons l'instant. Dakar instant yéen ma ne yéen a ngi wuli. instant neexul. neex na lool. Dakar neexul. neex na a fi nekk. ñoom bim bim cak cak cak cak bim Dakar instant Dakar instant Arnoucha Bambakara Bougara Mbacké Noreyni Basal Diaz yaa ngi si biir kontaan naa ci yéen dinaa leen di suivre nag mais xam naa ne tey moom tey lay yokk looy wax ci waa Dakar instant waaw Dakar instant xanaa du rafetlu seen liggéey ah. di leen wax ne yéen tamit ah, yéen vous êtes des relais te waa Dakar instant sax maa ngi seen biir nag ndax instant dafa xew sëñ Touba fii la wàcc Dakar woo fi maam Cheikh Anta Dakar ñëw nag maa ngi guddug leen fan Dakar instant yokku ba ca mel ni yi Tuuba. la ilaha illallah oh, oo Dakar instant ca kaw ca kanam. ah, ah Dakar instant la wax yal na yàlla lawal télé bi ci barke Seydina Mohamed. Dakar instant lañuy ñuy bëggee ci Sénégal. waa Dakar à l'instant bëgg naa leen. et eh, Dakar instant Dakar instant.